الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوتي تي في جسان فيدوبي الرحمن الرحيم نسمت يالله باخ سي نيو في سي براب مولانا الاسلام الحاج ابراهيم نياس نا في موي مان بول فايدا كوسي مبيتين بلاص بي ني نيك ني نك مالاج شيخ ابراهيم نياس موم مو في نك دك bi mu ñëw Kossy ne dañ 1911 la ñëw fii Kossy bi mu ñëw mu ngi ànd ak Baye boobu Baye fukki ak benn la am bi mu nekkee fii Kossy nekk fii bu nawet jotee muy ñëw di bay fii si Kossy taalibe di ko fi bayal fi la nekk ba génn àdduna euh, nekk fi ak magam xalifa Niass bu nawet jotaan mu ebal ko fii si Kossy muy bay si moom Cheikh Ibrahima Niass bi mu nekkee fii di bay ba bu neer jotee mu dem jébbal ko magam xalifa Niass ba yàlla def la mu def mu wutu Cheikh euh, Maalaji Abdoulaye ba faydu bi euh, tàkk fii si Kossy fii la faydu ba déclenché ñu koy wax Bustaanu na mooy këram gële fii Arifina waaw bi faydu bi tàkkee na ba mu dellu Mirina ba mu sanc Mirina si la ñëwaat déclaat na Kossy bi mu décrété aussi mu ne moom du tabax fenn kër baayam lay tabaxaat moo waral mu ñëw tabaxaat kaas bi ngeen nekk nii euh, kaas bi nga xamante ni fondement wu Maalaaji Abdoulaye la waaye Cheikh Ibrahima Niass moom moo ko tabax si jamonoom bi mu koy tabax 7 mètres carrés la. 7 mètres la euh, dara wàññeeku si bu mu ko tabaxee léegi musul musuñ koo changé musuñ koo defaat dara lu peinture rek. Ah, peinture rek lañ ko def néeg bi musu see dara changé wu si jamono Cheikh Ibrahima Niass euh, lu dul seng bi. càkkaar bi sax changé wuñu ko seng bi dañuy di di ñax mi rek defaati seng bi li ki changé seng bi nag mooy xalifa Cheikh Ibrahima Niass alaaji Abdoulaye xalifa moom moo changé barab bi moo ko changé seng bi lal bii ñuy gis si la bàyyi daan tëdd waaw si jëmam ju tedd jooj lal bi tim dara changé wu si lu dul taalib yi ñoo indi darab yi di di si barkeeloo waaye lu ko mooy dara changé wu si waaw bàyyi fee laan tëdd nettali nañ sax euh, euh, benn lettre boo xam ne sëriñ maa yi mu bàyyi mu ngi koy nettali mm, jamono gàmmu gi muy benn lettre boo xam ne ñu ne bàyyi mu ngi ko bind en 1966 ne ànd naa ak bàyyi ak moom moom ak sëriñ Mahmoud ñoom ñett mu ne ñu ñëw fii si Kossy dugg si néeg bi bàyyi jullee ñoom fi ba pare ñaan mu ne leen génn leen may ma tuuti mu ne bu ñuy génnee euh, ba benn diir bàyyi oolu leen. ne leen len leen eh, yonent bi ak sëñ naa Babacar gane si nañ ma léegi si néeg bi mo buur daanu si yonent bi eh, yéen sëñ naa Babacar mooy buur daanu suñ kaw ñun ñett ñëpp ñu bokk tëdd si lal bi loolu en 1966 la 66 waaw mu nekk mu ne leen wax leen lu ngeen bëgg ma ñaanal leen sëriñ Maamad ak sëñ maa yi ñoom ne noppi mu ne ah yéen laay de mu ne ko wax wax nañ suñu xol yéene nañ liñ bëgg yëpp waaye li ngeen bëgg yëpp ñaanaan naa leen ko dina am mu dellu ne leen wax leen lu ngeen bëgg laaj leen ma lu ngeen bëgg mu sëñ maamu na ko ah, yow de da ne woon doo tagg kenn ku dut bi sallallahu alayhi te gis nañ ngay tagg euh, euh, waa di yaay yàlla yay ñoom Seexu Tijaan ak ñoom wàllu yi mm-hmm. mu ne leen waaw loolu jamono bu paase la woon waaye jamono yu ñu dootuma tagg kenn ku bi fii ko doon waxee si néeg bii mu loolu doyut mu ne mu lëng leen ñoom ñaar ñëpp ñaari doom yooyu génn ak ñoom ba si buntu bee mu joxañ leen seen néeg maam si jànq na leen seen néeg maam bi lépp soxla bu ngeen am si kaw suuf bu ngeen ñëwee fii mu nangu waaye waxaal leen lool. muy néeg boo xam ne néeg bu barkeel la ndax euh, maam Baye wax na si néeg bi ne bépp xaajo bu waa ñaan fii yàlla dina ko nangu waaye maam Cheikh Rafa teg si ne moom xaajo bu faju boom du teg tànkam ko si. mooy barab bii nga xam ne bàyyi fi la digaloon xadamam boobu ñu koy wax Cheikh Aboubacar Coota moo doon borom këru Seyda magu sëñ Màkki sa Coota Niger bi mu ko ziyaare si ànd ak feebaru paralysé bi mu ñëwee waxtu bii di tàkkusaan ñu la dugg si Kossy eh, bàyyi dafa wax ne dimbaleen ko dugal ko sama ne yaay mu nekk fa ñaan soxlaam nekk di ñaan soxlaam benn jamono timis jot bàyyi ñu wax ñëw ne ko timis jot na jugal ñu julli la ne ba jóg sànni bekke yi kayal attaque ko paralysé si néeg bii la woon si la bàyyi wax ne bépp xaaju bu waa indeet si néeg bii amul sikki na yàlla dina ko nangu boobu léegi jaamu yàlla yaa ngi fiy ñëw di ñaan seeni soxla di deesaat di sant yàlla amul sikki na xaaju bi ñu yàlla nangu na ko ndax jamono siabaka coota dañu koo nettali waaye ñu ne dog bu utoo suñu fii gis nañ kéemtaan yooyu am na jaamu yàlla yu ñëw fii indi seen i aaju di sant yàlla ne amul sikki na xaaji bi ñu indi woon yàlla nangu na ko weer ginnaaw rek bi wajal waajal gàmm gi am na benn awsa bu fi ñëw ànd ak doomam bu ndaw tuddee ko Cheikh Ibrahim ñëwee fii la toog mu ne ma dama ñëwoon koo si ànd ak sama borom kër ñu sëy sëy bu yàgg amuñu doom ma ñëw ne moom asu jànqa ñaanti aajo ne maa ngi ñaan yàlla yàlla may ñu njaboot man ak sama borom kër ba ma mayee njaboot depuis ñaari at sama doom baa ngi nii ma jee ko dagg biyee ñëw koo si pour Santia Cheikh Ibrahima ma tax ñëw fi mu ne ma ndax xàmmee nga ma ne ko ñii ñëw ko yëpp dañoo bëri mu ne ma ne ko mo moo tax du ma la xàmmee mu ne ma ñëwoon naa fi doon ñaan loolu ma ñaanoon ñaan boobu moo nangu moo tax ma ñëw sant Cheikh Ibrahima ak ñeneen ñeneen ndax barab la boo xam ne képp xaaju fu waaye indi amul sikk ne la dina ko nangu ci barab bi fi nag bàyyi barab bu fonk loon barab la boo xamante ni fi jóg guddi daaw fi jóg bëccëg da fi daan ñëw heure yu nekk nawet surtout nawet da fi daan ñëw fi taal bi di ko bayal bu ñëwaan fi la daan summi yëreem mu wekk si porte-monnaie bu wekkee yëreem si porte-monnaie waaw waaw seeraan wekk yëreem bu tëddaan ñu daan koy upp lee moo uppee kaay bi ñu ko ah. dafa am benn tissu bu ñu ñu owee ko ko mu am benn valant bu ci suuf comme darab yi nii mm. lii nga suñu seen nii ma téye mooy uppookaay bi ñu fabriqué woon daan koy uppee Cheikh Ibrahim nga xam ne boo plafond bi amu fi am na bu daan buum daan takk si càkkaar bi si kaw am benn bu génn si ginnaaw ànd ak poli donc bu bàyyi te daan buum boobu ngay la taali bi daan xëcc ñi nga xam ne fekkee woon nañ jamono boobu ñun booba ñun juddoo bu ñu ginnaaw gi nag fekk nañ fi buum bi yëpp si jamono alaaji Abdoulaye eh, xalifaam euh, waaye mujj gi bi ñuy defaraat seng bi nag lañ ko ajji woon nit ñi xotti woon tissu bi ba mu discadre kese bi waaw ah, si mbaax yàlla am benn menuisier tapissier bu fi ñëw ne ma soo bëggee ma cadraatal la ko defal la ko beneen tissu Euh, muy symbole boo xam ne nii daa mel ni li fi nekkoon bu njëkk hmm. moo tax ñu defaraat ko nii waaye ay na jamono yoo xam ne ku ñëwaan daawoo koy gis fale lañ ko daan si koñ rek hmm. ku ñëw barkeelu si waaye nag euh, ñu ko bu mel ni si jamono hmm. Cheikh Ibrahim euh, lii si gannaawam mooy seetu bàyyi daan seetu xam ne mag ñi danañu wax ne képp ku si seetu doo too amati problème ndax foofu la bàyyi daan gis boppam di seetu donc képp ku fi ñëw tim ba xool sa bopp ba gis sa bopp Euh, yaakaar naa ne dootu amati mu bët donc ñaan yàlla képp ku xool yal yàlla may la bët yi leer ak euh, yow lii tamit ñu si jàkkaarloon mooy siwam siwa la boo xamante ni dafa meloon ni genre sas si dafa ndox nga ko dafa am fooy laan laan rek muy sotteeku comme sas si jamono boobu waaye moom mel na ni moom dafa dëkkoon jamono ndax euh, junj nañu sas booba robinet amagut junjoon nañu bant dootim booba courant amagut donc la leen ñu jàkkaarloo tim mooy basan bi mu daan bokkoon na si yi mu jëlee woon si jaawee Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mu doon basan bu rëy di leen ko lan laal ku ñëw naa la fi ñaan sa aajo euh, waaye taal yi di si bokk xër gi di ko daggat ba mu des lii euh, sëriñ Baye Zénabou nga xam ne mooy xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim fii si Kossy mos na wax ne bu waa kër Cheikhou Tidiane defoon ni ñun duñ si jot kon ñun waroon nañoo garder. ba kenn du ko laal ndax bis boromam dina ñëw ñu jox ko ko donc mos na ko wax fii si néeg bi waaye xarit taali bi daal ñoom ñooy ku ñëw rek ak nga yóbbu donc lii moo tax lii moo si des am benn jaamu yàlla ku mu am doomam ki ñuy wax Baye Khady Fall mos na ma koo defal cadre bois bañ cadré woon ko waaye euh, cadre bi léegi dafa dëppoo ak jamono euh, ku ñuy wax Cheikh Diagne Couta moo ko indilaatal ñu dugal ko si biir donc taalibe yi gis nga ko am suñu sob sax ba gis tojaat nañ ko ba ginnaaw gi weer bi dafa tojoon ba am ñoo xam ne ko tojoon benn jour fekkuma fi toj ko ba commencé a moo doon bibliothèque am def ay téeréem tey ci ginnaaw fii mooy moo doon bi nga xam ne fee daan féexloo fii moo doon xam ne fee fii ci jamono bàyyi fleur lu ne def na ko fi ay fleur yu rafet bu génnaan féexlu daan jàng fi alxuraan léeg-léeg moom toilette yi la. waaw toilette yi la. mais bi si jamono si jamono baay la waaw. 1994 93. ko miiree. ndax dafa ñëw fii di ziare si Baye boobu sàkket di ziare si kër Baye boobu sàkket moo si nekkoon sàkket lañ ko daan wëral at bu jot. Mm-hmm. ni kër gi yaatoo nii. noonu lañ ko daan sàkketee ba wër. Mm-hmm. waaw man ay xet yoo xam ne xet yu dëgër la mën na fay nekk ren ba déwén du def dara dañu sàkket rek ñëw wërale wu kër gi ba mu daj mu def benn bunt bi benn bunt bi ak bunt bi génnee ci kër ki amee caabi kër baay bi mooy barxam caab yal na ko yàlla yërëm génn na àddina eh, benn bis mu ñëw fi di ziare si baay di ziare kër baay moom maay rafaal bu ñëwee gis fas yi fu nekk fas yi duggee mbaam yi duggee mu métti ko lool te daan di dem ci alaaj Abdoulaye ñaan ko ndigal ne ko kër baay ga daal wax dëgg yàlla na ma fekkee daal wax dëgg yàlla gënalul ma dama bëgg nga may ma ndigal ma tabax ko mu wër nga xamee ne benn jur du fa dugg waaw Alaaji Abdoulaye may ko ndigal bokk na ci mool yi tabaxee fii usine bi ñu ko tabax bi ñu ko moolee Dakar la nekk camion lañ ko daan sarte indi ko fii eh, eh, kii eh, nu mu tuddati Mamadou Seynou Diop ca Dakar moo daan ànd ak bi ñëw fii mool yi usine bi day mool mu tax xepp mhm. waaye comme mool bi dafa ànd ak béton dafay dëgër noonu lañ ko jëlee sart si caméra bi indi fii Kossy am na yoo xam ne nag fii ci dëkk bi lañ ko moolee waaw waaye tabax bii keroog bi mu paree mu ne tabax boo xamee ne liggéey boo xamee ci pay bàyyi man fi dafa maa ko jiite ci bii la xam waaye jamono ngay ñëw fu ñu xootee liggéey bàyyi fu ma fa teewee ñëpp dina xam ne man fi Fall teew naa fa fu ma fa nekkul ñëpp dina xam ne nekku ma sëriñ bi wax na ko léegi tey fi mu toll nii paye bàyyi foofu soxla liggéey ci kër Cheikh Ibra ngay dem boo demee na ko bëggee noonu nga ko xamee muy doomi baay muy sët a baay loolu taalibeeg Cheikh Ibra Fall moo ko maye bi ñuy miire kër gi ba xegg ci trimo bële moo tàmbalee ne ci koñ bi jëm nale fii la toog fii leen toog lala ko basang mu toog duhul luñ ma nettali loolu moom maa ko fekkee ci koñ bi fii fi la mool yi nekkoon fi la jóg sol dàllam ba muy xenu mool bi sax daanaka samay wane kenn xamu maa lu ko tax a jóg mu wax ba ci mool yi mu yëkkati benn mool teg ci boppam bi bi muy toll fii am ci taalib yi ñu ko dab ñu ko deen maam indi ñëw ko mu ne bàyyi leen kenn xëyooxut ñàkk xenu ci liggéey bàyyi ndax ba ñuy tax tabax kaaba ga yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf doon doon xenu osman daf doon xenu aliin daf doon kenn xëyooxut xenu ñàkk ci liggéey bàyyi noonu la xenu mool bi dem moom ba ci fi maçon bi tollu fële mu teg mool bi waaw am na ñuy wax nag si taarix ne eh, dóor na ko wala dóor maçon bi dóor na ko wala dóoru ko waaye daal teg na ko daal moo ko xenul boppam fii nii ba fële mu tegal ko boppam ñu ngi ko bind mm-hmm. eh, date biñ ko bind tam kër gi kër gi dégg nga ak eh, weer bi mu tollooxoon ñaata fan la tolloon yëpp ko ci bind waaw si paal yi tam aussi waaw la ilaha illallah laa ilaaha illallah waa Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak gaal yéenay liggéey faydu baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey faydu baay bi ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy